ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaara te di leen ndokkeel eh, ñëwaat nañ ci seen émission bu am solo bi nga xam ne eh, seen seen CMT bu Grande Mosquée de Touba eh, mi ngi leen koy amal muy émission gàggantiku gàggantiku nag émission la boo xam ne dafay aju ci ay laaj ak ay tontu xam ngeen ne suñu ñaaru numéro yi ci ginnaaw yëpp ñu ngi woon ci buntu laab laab nag dafay bunt bu yaatu boo xam ne bu yitteel la moo tax yu sew yi ci nekk di ay mbir yu sew yoo xam ne jullit bi daf ko war a xam moo tax ñu koy jël di ko jeex di ko laaj ay boroomi xam-xam ngir ñu gàggante ñu ci ba ñu mën cee jariñ loolu tax na ñëwaat nañ tamit ci fii ci daarul xalimul xabir ci sëriñ Mbàkke Abdourahman di boroom xam-xam di mufti ngir mu indilaatal ñu ay tontu ci beneen bind buñ koy laaj ci wàllu laab xam ngeen ne bind bi jàll euh, seetaan ngeen ko yu am solo yi nga xam ne indiwoon na ko ci wàllu li nga xam ne moo aju ci surut yi muy sart yi nga xam ne moo aju ci laab indiloon nañu ko ci bunt bi jàll tey jii nag ñu ñëw ngir fas ko yéenee laaj euh, yi nga xam ne tere nañ ko maanaam yi nga xam ne moom lañ tere ku jàpp war ak ku sang war te loolu xam ngeen ne lu am solo la eh, ci ñu xam ko aaudu billahi min alsheytaan arrajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi ajmain eh, jërëjëf sëriñ Abdul Ahad maa ngi lay nuyu di nuyu sëriñ Abdul Xaadir bokk yi ñu àndal yépp di leen siyaaru di nuyu mbokk yi ñuy bàyyi xel yëpp ci ëttub xam-xam bi hmm. euh, di ñaan sunu borom defal leen jàmm defal ñu ko di fas yéene ñëw nag ci laaj boobu nga laaj muy laaj bu am solo yit ndax diine dara tuutiwu ci kon fexe ba lépp leer nit ñi bañ lu ci nekk ñu man koo teg ci teguwaayu leer am na solo te yooyu nga wax yu am solo la mooy nit ku jàpput ku jàpp war te defagu ko wala sangu war ko te defagu ko am na ci lislaam loo xam ne dañ ko koy tere kon mu xam ko ndax tere yàlla moom boo ko bàyyiwul dafay am bàkkaar te bàkkaar nag mën naa alak nit waliyaasu billah kon nit ki ñàkk a jàpp moom la ñuy tuddee toj mu ndaw ku jàpp war te defu ko wala ku sangu warte defu ko loolu la ñuy tuddee toj mu mag ñu ñaar yëpp am na yu ñuy tare am na yuñ bokk bu dee toj mu mag mi lépp lu toj mu ndaw di tare da koy tere yokk ci yeneen nag kon dana njëkk leeral toj mu ndaw te mooy ku jàpp war te defu ko liñ ko tere yu bari la waaye nag dafa tënku daanaka ci juróom mbir li ci jiitu mooy képp koo xam ne jàpp da ko war te jàpput dañ koy tere julli julli yépp nag moo xam julli farate la moo xam julli néew la moo xam julli naafila la moo xam julli sunna la ba ci sujuutub alquran ku jàpput suñu ko def kon bàyyi xel ne ak xaala ba mën a toll soo jàppul bul julli génn julli ndax boo ko defee du baax te da am bàkkaar ci li nga ndax tooñ yàlla borom bi la ndax xëtt ndigalam la kon képp ku julli rek na la leer ne am nga njàpp te li ñuy wax fii nag sikk sàkk moo yàqin ñoo fi am maanaam kii nattable jàpp na jàppul ku jàppul lañ koy jàpp maanaam bala nga sañee julli faaw nga am yàqin ci ne am nga waaye booy nattable rek dama jàpp woon li wax sikk sàkk ñetti xeeti sikk sàkk la li sikk sàkk ndax jàpp na wala jàpp ma kooku mooy ki toj njàppam toj fàttaliku na na njàppam toj na waaye li muy nattale ndax jàpp na wala jàppul ginnaaw bi ak kii sikki sàkk ndax njàppam toj na wala tojul moom fàttaliku na fu mu jàppee waaye li muy nattale ndax tojul ginnaaw wala déet ku ñetteel ki mooy ki si ki ki fàttaliku fu mu jàppee fàttaliku fu am jàppam tojee muy sikki sàkk ban moo ci jiitu ñett ñëpp dañu war a jàpp kon ku jàppul du julli genn julli ba ci sujjóotub alxuraan noonu wax moom li ci jiitu ñaareel ba ku jàppul du tawaaf kaaba ga tawaaf yëpp nag tawaaf yi war ak yi nekk sunna ak yi sopp du ci def benn kon charte la balaa nit ke mën a wër kaaba gi mu tawaaf mu laab moo tax dañuy jàngale saa boo doon wër kaaba gi ba mu yàgg sam jàpp toj da dem jàppiwaat soo dikkee da ngay tàmbaliwaat nag a nga njëkkoon day yàqu doo ñu di àggale kon loolu it am na solo loolu ñu xam ko bàyyi ko xel da ngay tàmbaliwaat doo ne wër naa ñetti yoon damay di jàpp ñu àggale déedéet li nga def day yàqu ñaara ngoog ñetteel bi mooy ku jàppul du laal ab kaamil kaamil mooy mushaf ku jàppul du ko laal mushaf nag mooy loo xam ne alxuraan jëpp a ngi ci waaye nag alxuraan képp a ci ne bu dee téereb tafsir a dont aa yu baree ngi ci waaye tafsir la tere wuñ ko laal di jàpp ndax du alxuraan bu doon alxuraan duñ tekk ci weneen làkk la alxuraan dépp na ca it loolu tekki la waaye du alxuraan kon li ñuy tere ko ko laal mooy téereb yàlla bi nga xam ne tàmbalee ci bopp bi ba ci fi mu waaye nag lépp nga fa waaye moom doo fa ne kon bu manqué waxutu waxuñ nekkul kaamil su raxee leneen nekkutu ko kon ku jàppul du sañ a euh, laal ab kaamil laal gi nag moo xam laal ko mu ne nii ngi jàpp ko téye la moo xam yanu ko la yëkkati ko moo xam da koy lonk ci bant wala dañ koo def ci ak mbuus nga yëkkati mbuus nga lépp dañ koy tere ku jàppul du laalub kaamil ci genn xeet laal yi allahumma nga doon tukki yor bagage yoo xam ne bagage yee la tax a jóg kaamil bu toppaale waaw moom mën ngaa yor wala suy kaamil na ci biir te ko ci jàpp waaye bu fekkee nag kaamil bee la tax a jóg moom nga bëgg a yóbbu moom boole ci bagaas yi doo sañu laa wala suy ci jàpp loolu jàpp naa ne maintenant xam loolu euh, kon fu mën a nekk rek dañuy tere ko ko laal fenn rek lañ ko mayee nga laal alxuraan te jàppoo fenn nga seen alxuraan joo xam ne daa nar a lakk ci ndox nga gaaw këf ko ak lakk suuf si na lakk sañ ngoo këf tu jàpp wala bu yéefar nar koo jël sañ ngaa gaaw dem këf ko ci moom rek la nit sañ jëleb kaamil te fekk jàpp jàpp naa ne am na solo ñu bàyyi ko xel baax baax euh, naka noonu euh, bagages yu bagages yu ñuy wax bu kaamil nekkee te kaamil bi tax koo jóg sañuy su koo yan ab yéefar bu fekkee nag bagaas yee tax jóg moom kaamil bi da ca àndaale moom mën nga ko yor te jàppoo mën nga ko yan ab yéefar mu yanul la du jublu gi daa topp bagages yi mhm. li ñuy wax nii nag dañ ciy settee eh, këyit wuñ bind alfaan rek doo xam ni alfaan la dañ ci seet tey ab dongo akub sëñ daara ñu wax naa dañuy tere ñu sëñ daara bokku ci ak dongo bu jàng bokku ci waxtu wi ñu nekkee ci daara bi mën nañoo laal alluwa mën nañoo laal ab jukki mën nañoo laal sam ëpp kawe ci jàpp sëñ daara ak jàngalekat mu ak ak dongo daara waaye nag waxuñ sëñ daara boo xam ne alxames ñëw na mu jógee daara dem këram jamono bi mu nekk ci daara jëm wax bu xëy see ci daal ji daal xam nañu day jëfandikoo téere bi saa su ne kooku mën naa di laal kaamil te jàpput mën naa yor kaamil bi di déglu ba jàpp toj mu continuer yor ko terewul ndax moom nag bis bu demee këram wàcc bu dem këram nag moom ñëpp yam lañ du laal sañ a laal kaamil te jàpp loolu it am na solo ci ci ci bàyyi ko xel sëñ daara moom doonte dafa day jigéen ji yore janaa bërëg sañ na laal kaamil moo xam donga bi la moo xam suñ daara bi la suñ ñu ko laal alxuraan it may nañ ci lenn ñu def ko gàllaaj buñ ko ëwee ku morsa boo xam ne nii bakk sobe sa du ko laal kooku nit ki jàpp sañ na ko sañ na ko takkal mala ak yéefar daal lañ ko lu takkal loolu it jaaykatu ndax war nañ koo xam ak yéefar deesu bind alxuraan di ko jox yéefar gars yi jaay bàyyi xel loolu. suñ ko xasee aw terewuñ ko donte gënuñ ko waaye buñ ko xasee aw moom ba mu muuru nit mën na ko takk buñ ci wanag donte nag li gën yu mel noonu bañ ko ci wanag loolu euh, kon mën na ko yortu jàpp mën nañ koo takkal nit mën nañ ko takkal jur liñ ko ku ko takkal da mooy bi yëfar ci kenn am weexal gu doon ba tax nga bind alxuraan di ko jox ko xam ne moom gëmul yàlla ko yonentam sallallahu alayhi wa sallam loolu moo tax bàyyi xel sëñ blaat ne war nañu dégg yooyu ba xam euh, kon loolu mooy li ñuy tere ku amee toj bu ndaw ku amee toj bu ndaw mooy ku jàpp war jàpp jàppul euh, su ko defee nag tey am na solo li ci borom xam-xam yi wax lu am solo itam moo di ne buñ alxuraan nekkee boo wàccee application boo xam alxuraan la saa boo fayee application bi appareil bi fu la neex mën nga ko fayee waaye nag saa boo ko ubbee xët bi ñuy ubbi ku nekk alxuraan day jàppale moo kaamil yàlla ndax lu ñu wutale nit ñi mun na ci écran la ak mun na ci àll wala mun ci kër moo tax bu mel balaa nga koo sañ a ubbi ci jàng dama nga jàpp allahuma nga doon ko ñu wax léegi ab sëñ daara wala ab dongab daara boo xam daa dëkk ci daara ji kooku nag moom mën na koo laal suñu waaye ku dul kooku bu bëgg jàng alxuraan bul wax ne ci tablette la nekk wala ci sama omsil la nekk mën naa koo laal bi taabi ndax kay soo ko ubbiwul nag moom donte xam nga application baa ngi ni ngi jàkkaarloo moom waaye ubbiwoo ko kooku sañ nga sañ nga xoolaat ku jàpp ko loolu a leeral ndax dafa tasaaroo mooy li aju ci bu ko rek mu ay eh, ci li ñuy wax laab gu ndaw toj mu ndaw loolu lay tere li ñuy wax ni alxuraan ji nag bind ku ci la bokk nag ku jàpp du bind alxuraan doonte aaya la suñu ko bind xanaa ba tey dong bi ñuy wax ak sëñ daara bi dong du sëñ daara suñ bind benn ay alxuraan tu jàpp ci jàpp nañ ko teree laal kaamil bi tere ko laal bikki bi tere ko laal alwo noonu nañ ko teree bind ko loolu jàpp naa ne mat naa xam am solo la bi ci des nag mooy laab gu mag ne toj mu mag toj mu mag mooy koo xam ne sangu farataa ko war eh, xamoon nañ yi waral sangu farata janaaba la xayd ak nifaas janaaba ñaar la génne man ni ak jaxaso ku ci def benn yii ñu wax yépp muy julli xeeti julli yépp tawaaf xeet tawaaf yëpp laalub kaamil fii da cay yokk jàng alxuraan maanaam ki jàpput terewuñ ko jàng alxuraan mën naa tari laal kaamil laal alxuraan lañ koy tari waaye moom mën nay jàng mën naa tim téere bi ni du ko du ko laal am maa ki nga xam ne nag moom dafa war a sangu te sanguwul sañuta tari alxuraan làmmiñam di yëngutu déedéet xanaa di jàng ci mu xelam ndax jàng ci mu xel li ñu tuddee xiraa saamita du jàng boo ko defoon ci julli ak ku jàngul yéen nga toog nii rek di teewlu maanaay ci soo la sam xel waaye nag soo làmmiñ yëngutul waaye bu see fekkee soo làmmiñ yëngut donte yow dong yaa koy déglu sax déggoo ko loolu jàng la loolu nag ku sangu war te defu ko dañ koy xital benn yokkal ca yu ñu waxoon euh, julli tawaaf euh, laal alxuraan yokk ci jàng alxuraan yokk ci dugg jàkka sangu warte sangu woo warul tabbi jàkk donte jaar jàll la nga xam ne bu jàkk joo xam ne aw yoon la suñu fa jaar donte jàkk ci kër gi la ne kër gi nga dëkk la su suñu fa jaar ku jàpp moom te tëriwuñ ko dugg jàkk boobu yu mu dolli yu mu la wax ne la ñi dañuy dugal mbooleem yi ñuy tere ku jàpput yëpp dañ koy tere ku sa ku sang warte sangut yokku ca jàng alxuraan ci dugg jàkk tëriwuñ tëriwuñ ko dugg jàkk kii nag dañ koy tere dugg jàkk bu bu bu bu fekkoon jàkka ji yoon li dawar tey bu yàlla dogal mu dugg ci biir jàkka ji far mu def ko te dafay nelaw ngir ngànt fu mu yewoo gis ne kat sang war na ko daa war génn jàkk ci saasa naka noonu ki nga xam ne tiim mooy farataam moom sañ naa dem ci jàkka ji julli waaye fu mu sëlmay na génn jàkka ji liggéey la fa sañ julli jotee sañ naa dugg waaye fu mu génn fu mu sëlmal lekk ndax niñ ko xamee ci mazhab bi tiim du yëkkati am toj day muy nit mën ko mën a julliwaale solo si kon fu mu sëlmalee day mel ne del siwaat na kon na génn jàkk kon du jàll ci jàkk du ko julli allahumma lor am lor ne bu dugg jàkk ji sañ na faa dugg sañ na faa toog ngir ba lor di jeex sañ na faa fanaane bu ngàdd amee waaye bu loolu amul moom sañu dugg jàkk jàkk yëpp lañ wax nag ñuy julli ajuma ak waxtu juróom ba ci jàkk ji ne ci biir kër ndax moom farata ji rek lañ ko may farata ji lañ ko may kon bu jeexee ni génn kon loolu bokk na ci li toj mu mag di tere euh, bokk na ci xam nga toj mu mag janaaba ci la bokk xaydu ni wax ci lañ bokk waaye xaydoog nifaas nag ki ko yore moom tere wuñ ko jàng alxuraan bu ragalee fàtte mën a jàng alxuraan moom ndax tépp boxu janaaba kay mooy li nga xam ne ku ko amee moom suñu jàng alxuraan ba ci sëñ daara bi ñu doon sax moom ndax bu la neexee nga ko léegi xaydoog nifaas nag ni borom mënu ci dara yàlla te faw day jeex mu door a mën kon ñooñu mën nañuy jàng ki yore xaydu nifaas mën nañ jàng na ci li ñu leen di tere it ku ne yor xayd wala nifaas deesu ko fase dafa araam fase jigéen ji nekk ci xayd wala nifaas araam waaw bu dee janaaba tërëwuñ ko nit ki mën naa fase ku yor janaaba ba ànd ak soxnaam fay fase ko sanguwut waaye xaydu nifaas day tere fase day tax julli du waaye day tax koori du te bu dee janaaba moom ante tey nit ki sañ nit ki mën naa woor yore janaaba nit naa xëye janaaba doon gën gisul ko waaye xaydoo nifaas mënut a ànd ak koor waru ko te bu ko defee du baax kon loolu it bokk na ci li muy li li li laab toj mu mag di tere day tere koor du tere julli du tere fase ku fase soxnaam ci waxtu woowu fase ma tàbbi na dafa na lu xaraam anu bàkkaar te dañ koy forcé mu fayle ko bu dee fase mu nangu fayle yoraat ko bu daji jeexee ba mu ne ci laab bu rek ma jeexee ba mu ne ci laab su ko bëggee fas yéene waaye dañuy tere fas ci mbër ak ak ak ni fas yëpp yëpp foofu it mat bàyyi xel am doom rek rumb daa koy fase bàyyi xel la ndax kooku boo ko fasee yaa ngi benn def nga lu arab ndax ci ni fas nga fase ñaareel ba it daje mën naa yàgg lool ndax këpp koo xam ne day ëddawoo ak laab day toog ñetti bërëb te am ñu bari ñoo xam ne bu ñuy nàmpal duñu am duñu bëri si bërëb mu toog ba doom ji feral bu day feral door gis bërëb bu doom ji feree mu gis baax mu toog ñetti baax bu doom ji feree te gisu baax mu door toogaat ak te kooku bu dee fasem payle wërta génn kër gi yaa ko war dundal ba am doom moo yooyu mat di bàyyi xel yow nit jubloo wax rek naa ko yeewee damay def bu mu am doom yeewee ko lu jut am doomu tànk su mu amee doom idda ji yéex te foofu mu heure bi mën na ko fase moo tax kuy fase soxna bi loom mer mer rek gëstu ba tey ba ndax mi ngi ci labolo jël li islam teg sax ku ko doon def rek fase mën na néew ndax ñaari mer mi lay dugal ba tax nga wax loo ulu ëpp boo ne woon naa xaar di seet ba xam laab na mu laabut wala bu laabee fekk ko ci mbërë nga na bàyyi mu laab diggante bi mero mën na fay bi ci des it jigéen ju setu de ci ñàkk set ku ci fase woon deesu ci tàmbala idda bokk na ci tax mu araam kenn du ci na ci loolu fi nii tax ñu di ko tere day yeexal idda ndax jigéen ñi bu borom këram fase ci mbërëg day day bu fekkee fase mënu mu fayal day néeg ba mbërëg moomu jeex mu door tàmbali idda dëgg dëgg taw tàmbali wàññi idda ji tàmbali na waaye ci lay door tàmbali wàññi kii maanaam kon day guddal mbërëg kon bokk na ci li nga xam ne nii xaydul ni fas la koy tere kon ñoom janaa nañ ndax janaaba moom terewul woor terewul fase li ñuy wax nag fase lañu wax mais terewul takk nit mën naa ne ci ñu fas ñu fas ñu fas nit mën naa am doom ñu moo tax bu ñu koy mayee duñ lijjanti ba xam ndax mu ngi set nag set ndax terewul doon waaye fase ci la ñuy tere loolu it eh, jàpp naa ne lu lu am solo lu mot a bàyyi xel la eh, ak li i'tikaaf ndax dafa taxoo ak jàkka te ku noonu yore janaaba dugg wala kii dugg jàkk kon ñoom duñu naxti kon jigéen jigéen ñu i'tikaaf tey ba fas dab ko tey génn jàkk ji dem toog këram waaye nag dañoo xam ne ko waru may li i'tikaaf mi ci kaw mooy li eh, li li li ku laabut li ñuy tere ku laabut lañ ko tere yi ci des yëpp nag da ko war bàyyi saa bu setee dee suwaat àggale naka noonu góor goo xam ne daa fanaan ci jàkk ji far nelaw doon doon li gént ndox génn ci moom day daal génn jàkk dem sangu ji dooru ñëw àggale du sañ a toog ci jàkk ji loolu it li naka noonu li ñuy wax euh, tahaaratul xabasit nga xam mooy ku sobe taq ci yaramam ak yéreem ak barab bi muy jullee mooy si siiw julli la gën a siiwee ci sart si xaala ci julli waaye ñu bàyyi xelit ne tawaaf ci la bokk pour kaaba ga dañ cee sart tahaaratul xadas charte ca taxaaratul xalas ku yéram taq sobe wala yaramam bu wëree kaaba gi baaxul faaw daa war a am ñaari laab yi loolu it yu mat a bàyyi xel la ci ci ci ci toll ñu xam ne ñaari ñaari ñaari ñaari ñaari mbir ñaari laab ñu am taxaarut kubra ak suxra wala xadas ak xabas bu dee kubra bi taxaaratul xadas ci boppam ñaari xaajaat la mooy bu ndaw la bu mag bu ndaw bi mooy ki jàpp war bu mag mooy ki jàpp war mu def ko laab na bu jàpp ko wax ne xadas la xadas asxar ki sangu war te sangoogul dafa am xadas akbar kon ñoom ñëpp bokk nañ leen tere julli xeetu julli yëpp bokk nañ leen tere tawaaf ñu wute ci jàng alxuraan ki yor laab bu ndaw mën naa jàng waaye du sañ a mag nag dañ koy tere lal kaamil jëkkër jàng xanaa ay ayat kooku ñu wax ne du jàng dara ci alxuraan may nañ ko mu jàng ay ayat yu néew yoo xam ne dañ ko baaxoo musloo sañ na jàng ayatul kursi yi sañ na jàng li xalaas ak fàlla xin naas waaye sëñ ti jàng nag ayatu day ni wala yu mel noonu nga xam ne ci ñenn wax nga xam ne donte am na ñu ne alxuraan lépp musluwaay la donte aaya bi ci boppam tegtalewut ak muslaay jëm mi jàng alxuraan muslaay la ñu wax loolu nag dañu wax ne bu fekkee ne muslu la ci sañ na ko ak lu ko nuru lu ko nuru mooy sañ na cee tegtalu ñu wax ko mu ne àllo demal yàlla wax ci alxuraan ne nangam waaw ak léemu ak yooyu yëpp ci la dugg barab yi ñuy dugg di jàng ay aayat yooyu muslu sañ na ko sañ na loolu loolu terewuñ ko kon loolu rek lañ ko sañ ci ci may jàng alxuraan loolu daal seen la ci tënk mooy yi nga xam ne nii bunt yu am solo la doonte kii na laaj na mbokk yi xam ko bu baax a baax waaw loolu daal suñu blaat moo doonoon tontu bi ci loolu muy laaju li ñuy teree ku war a jàpp ak ku war a sangu te dafa kuñ ko jàpp naa nag lu am solo la loo xam ne dara jëru cee xew rawatina yu mel nii ndax nit ki lu jëm ci jaamu yàlla moom dañ ci tere làmbatu ak tàndatu faaw nga def lu leer mu door mat kon ñu ngi dellu di leen nuyu di leen ziar bu baax di ñaan yàlla dafa leen tawfiq di ñaanal mbokk yëpp yi nga xam ne ñuy topp jotaay xam-xam yi nii lu am solo la di leen baalu ak ñëpp eh, wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. barakallahu fiika jërëjëf Serigne Mbacke Abdourahmane ci ñaari laaj yu am solo yi nga xam ne tontu nga ñu ci mu doon lu am solo te jàpp naa ne danañu amal solo lool ñu ñi nga xam ne ñoo ko topp muy li nga xam ne moom lañ tere. ki nga xam ne dafa jàpput ak liñ tere ki nga xam ne dafa sanguwut nga indi ci yu am solo yoo xam ne ay sew-sew la yoo xam ne jullit bu nekk war na koo xam te jariñu ci bu baax a baax kon mbokk yi seen émission gàggantiku euh, noonu lay demee euh, ci le 9 bu jot bu nekk ak le 23 bu nekk ci weer wi euh, danañuy dalal benn borom xam-xam indi ay laaj yu am solo xam ngeen ne ñetti émission yi ci ginnaaw yépp ñu ngi ci buntu làpp jeexagul sax ndax dafa doon bunt bu am solo boo xam ne amul genn jaamu gooy dugg te boo ko defut jaamu ga du wér kon loolu lu luñ mat a taxaw la te euh, euh, te mu am solo kon ñi ngi sant bokk yépp di leen ndokkeel nag ci bis bu tedd bi nga xam ne moom la ñu mël suba muy guddig laylatul isra wal mihraj di guddi goo xam ne ci leen dem sallallahu alayhi wasallam riñaanoon indil ñu sërice bu am solo bi nga xam ne tamit képp ku koy defit da war a laab muy julli ñu ciy ndokkeel tamit ñun taalibe xaadim rasul yi e, gën ak àddina ak Cheikh Amadou Fadal moom it ci la bokkoon ci la ci la feeñ e, ñu ngi ciy ndokkeel njabootu xaadim rasul di ci ndokkeel njabootu Cheikh Amadou Fadal gépp kon ñu ngi leen di jox rendez-vous incha allah ci seen e, émission gàggantiku bii di ñëw ñu ngi sant mbokk yi ñuy topp ci GMT TV di sant sëñ Abdou Khadir Bousso ak Baye Serigne ñi nga xam ne ñoom lañu àndaloon ci wàllu xarala gi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh